di gërëm mboolem jullit yi ak taalibe yi nekk di gërëm ñi nga xam ne nii ñoo jël kàddu ak ñi ko organisé ma njëkk ci nuyu sëriñ Mouhamed Niass ak ah ah Serigne Bokar ak sama xarit bopp dama ciy ñëw sax après muy bàyyi maamu nga xam ne nii waajuroon moo boole woon te li koy firndeel tey 10 heures la ñëw sama kër ñu bokk añ ànd oto ñëw fii te lu ko jiitu ànd nañ fu nekk Sénégal bu jiitu nii maa ngi lay gërëm di sant. ndax tey daa génn kon tey nag boo ñëwee fii man maa lay gërëm te ànd gi àndu yàlla ak yonent bi ak cheikhul islam rek moo tax ñu ànd di gërëm tamit ah sëriñ may may ci discours bi nga xam ne nii may xaar wax na ko waaye ak maam xam ne nii la sama wala la ne ñu di gërëm ñu fi nekk ñëpp di gërëm Habib Thiam ak sama xarit bee nga xam ne nii mooy bay bay dëkk bi dégg ko invité mu tëral teral na comme ni ko alxuraan wax yaa ayyuhaa llaziina aamanuu istajiibuu lillaahi wa rasuulihi saa'a kulli di gërëm tamit sama mbokk mi Kumba chambre de commerce président Fallou ba nekk fii ñun ñu ngi leen di gërëm di wax ne bis bi ki ñu ko tuddee moom ndax li may wax toujours rek ne xar day mel ne inna fadla biyadillaahi yu'tiihi man yashaa' yàlla moo koy joxe moo ko jox yàlla moo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee yonent ñu góoram yàlla moo ko neex mu def ndax su demee ba naan ko laysa laka min al-amri shay'un loolu rek moo koy wan ne ne moom nekkul mbir mi daal la leen yàlla moo ko def waaye alquran dafa wax ne yaa ma'shara al-jinni wal insi إن استطعتم أن تنجزوا من أقطار السماوات والأرض فانظروا لا تنظروا إلى السلطان man foofu laay xool si bàyyi ak nit ñu baax ñëpp ak Serigne Touba foofu laa leen xool xooluma leen feneen waaw ndax foofu mooy yaa masal jinni wal insi illa istata'tum kon tey jii su bàyyi jógee taxaw taxawaay boo xam tey foo tudd Serigne Touba tudd Fane Cheikh Alaaj Maalik tudd ko fa te bokkuñ jamono dama ne la foofu laa koy xool te kat bu doon jaamu yàlla rek mën naa am lu ko fa tudd waaye li ko fa tudd tudd foo xam ne nii dafa amoon njariñ nit ñi bi nga alxuraan waxee wa ammaa maa yanfa'u-n-naasa fayaanfa'uuna fil ardi kon li doon def dafa doon amal njëriñ nit ñi moo tax fii ba yowal xel dañu koy tudd ci àdduna bi yëpp kon tey man foofu laay waxee. développement bi nga xam ne ni moom lañ tudd fii man daf may ndax ba tey jii ñun ñii mënuñ def loolu moom mu mënoon a toog ne moom a jur te dana am addiya mu jóg di wër fu ne mu dem fa fu ne mu dem fa ba di tasaare diine fu ne mu dem fa di jàngale fu ne mu dem fa ba tey jii Afrique yi foo fa dem danañ la wax bàyyi ndax man kat. wax naa leen fii li ma gën a yéem encore damaa dem Chine 2004 ñoo fa demee dem ci fu ñuy wax bu moom Guangzhou la demoon après mu jaar Guangzhou avant muy am Pékin kooku ne ma ñun am nañ benn nit yàlla bu fi ñëwoon Afrique la dëkk xamuñ fan la dëkk mu génneel ma kayit bi mu amul fa bind mais signature ma nekk ak Kaolack yi yàlla xam na ne loolu. ci li ma gën a puus ba gën a bëgg Kaolack fi la bokk ndax kat man Kaolack ñàkkoon na ma man jóge naa ko ki dem Dakar daanaa toog fii ñaari at ñetti at ba fi ñëw voté wu ma woon fii ñàkkoon na ma bi ñu jógee ci chambre de commerce lañ ma tegal président Dame Ndiaye ak Lamine Niane ne ma boo bëggee chambre de commerce Dakar alaaj Idrissa Gueye woo ñu fii ñu ñëw leen ngeen toog seen i ah fële seen bàyyi bàyyi woon ma dem ci Lamine Niass wax ko mu ne ma dama tànn tool ndax mu ci dëkk leen mbir mi la ma waxee kon moom moo ma wax ma ñëw ma ñëw Kaolack jii te ñëw bi rëccuwuma ko te bi fi ñëwee gis naa ay nit gis naa fi ñoo xam ne nii ñu ma jàppale ba lii mën a am tey buñ taxaw woon ci chambre de commerce ba mën cee def dara ba def ci résultat suñ xeet bu xalaat ñuy jéem wax sax nañ soxla nañ mairie bi kon nag tey jii su amee yoo xam ne dañ ko def te ñun yàgg nañ koo def ci diine yàgg nañ koo def def nañ ko kooki bañ koy def kooki est-ce que dañ doon politique def naa ko Tivaouane est-ce que damay doon politique def naa ko Dakar def naa ko sax Casamance su ma dikkee fii ma juddoo gis école boo xam ne nii jàng alxuraan ak diine lañ fay def ak adduna sëriñ mën amee nii ñëw baaxee ma ko ma def fa laa ko na ma fa def tuuti la ci la ma ko bëgg a def tuuti la ci la ma ko bëgg a def kon loolu dama koy sant yàlla gërëm la ci ñaan yàlla yool bi ak képp ku ko dégg rek nga bokk ci ndax ak maa la xëy bi nii ku la tekkal lu baax ak ki ko defa yem kenn ñàkkul nag ay nit danañu ko def lu ne waaye nag ku mën na rek na def ku mën na rek na def école na yaatu na ku mën na def vingt étage rek moo baax ndax leen li day dem ba nga xam ne nii dangay mel ne dangay tas diine ndax diine su ci am yéefar bi demee sax nañ koo war a téye ndax inna alladina yunfiquna amwaalahum li yasuddu an sabilillah fa sayunfiquna summa takunu alayhim hasanatun summa yughlabun su fekkoon dafa koy def rek pour yàq su ma yokk nga mën a falaay dem waaye gis naa ci sama njariñ kon nag nañ bàyyi wax yenn yi soo deful dara bàyyi ñu def ko bul yàq waaye nag dara di alxasadu laa yasuuru mukk alxasadu laa yasuuru te kat. yàlla moom li mu wax lu lu lu tëdd mooy zalum yàqulu wa yalaabu rek bàyyi leen ñuy wax a fo rek ya fo fo rek man sëñ Manouma bi yaakaar xam naa ne loolu yaa ngi ciy dégg ne waaye gerte sori man li ma dégg ñu ne bàyyi wax na ne waa Kaolack wax nañ ma lu ne ba si nangam loolu doy na loolu doy na ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko maa yuqaalu laka illaa maa qiila li rasulin qad mënoo fexe ba lu ñu waxul kon tey ku bëgg a bañ ne dina wax def defal rek ñu gën la wax am laa ne nit mas alal di bàyyi ci jumaa ji am ko dégg ne ko de foofu jógee nangam ak nangam mu ne ko man xaw ma fu ko jógee waaye foofu ko jëlee man xam naa ko xaw ma fu man foofu ko lu la waaye indil bu nelee ca ba la jógee sax dañ daan wax ne l'islam daana dem nangu alal ju araam jël ko dugal ci lislaam taxawale taxawale ko kon yooyu ay débat ay wax la koy wax jëmul fenn kon nag man naa ñu ñaan ndaw ñi ñu gën a góorgóorlu suñu jàngee li bàyyi wax ne alaw bi di xaari saasaraati damay bëgg a guddal waaye lam ca wax muy alaw mi dal mbaar yi bi ñu suñu diini yi ba ubbi suñu jiinin ca di saala xale yi la bëgg ñu xool nan lañ def kon tey kii bu am doom demal na ko visiter li bàyyi def ndax démb rek fii ñëw naa fi waaye xëy na ci àdduna la bokk ma fekk ay xale ci biti lu ma deux mille xale ñu waroon a fay deux cent am ko am ko rek xale yi fees si leen tey ana xale yooyu naka xale yooyu est-ce a bàyyi Sénégal boo wootee fo di fay sax mu fees kii lañu am boo wootee loo xam ne nii ci jëmale nit waxuma la sax ci yàlla mais loo xam ne nii day jox nit mu mën a defar àddunaam defar dundam jàngaluñ leen wala waluñ leen ba nga xam ne nii koo ci jëlul ci gaar indi ko wala nga def loolu lu ñu war a lu ñu war a jindi lu ñu war a xeex la waaw jëlee nañ ko xeex nag lu ñu te loolu lépp nag façon comme ni sëñ mën a amin wax politique bu bon rek ko def bu bon rek politique bu bon rek ñun li ñuy politicien pour ñu politicien dëgg la dañuy yéene ci parti pouvoir moo mën a doon moo mën a doon li ñuy def risque la ci ñun mën naa seen ñuy def ñu ne ku yor dara nga def ay fekk candidat bu bu président teg nga di ko contre mais risque la mais risque loolu wax ne bàyyi bi di dem jëru risque di génn di dem benn sinon d'accord ji tubaab bi d'accord ji ngay dem risque lu ko gën a doon risque lu ko gën a doon risque risque la kon nag a xool la Serigne Touba waxoon ne xam fàq kablaa jënd na nañ dagg suñuy jënd jéem a liggéey jéem a ànd ak suñu ngor jéem a defar diine incha allah dañ ko am fii ak yow wala xaar incha allah maa ngi leen di gërëm leen sant ah ku ma maa ngi gërëm ñëpp di gërëm presse yi ah di gërëm El Hadj Ndiaye Cheikh lii nii liggéey bi mu def taar bari na di gërëm leen sama xarit Baye Matar mi nga xam ne nii ah sama conseil la ci ci ci yëf yi la bokk kon nag tey bis bu la bu rëy a rëy maa ngi leen di gërëm leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu